Euh, diffamation moom la ñuy tey ndax euh, am na ci lu bëri loo xamante dafa war a leer ci bopp sénégalais yi. surtout da ngay dégg ñu ne la diw daf ma diffamé diw porte nañ ko plainte pour diffamation diw ba mu mhm. demee condamné nañ ko diw est am na ay preuve diw ñu ngi koy laaj ay preuve moo tax leeral bi daf ciy jaadu. Mhm. parce que Sénégal dañuy considérer que nul n'est ignorer la loi. Mhm. alors que loolu wax bu yàqu la. wallaay euh, fi tey jii ni ay intellectuels de grands intellectuels yoo xamante a jàng tubaab. am na ñu jàngee arab ba am diplôme wala beneen langue donc ñëpp jànguñu tubaab te loi duñ koy tekki ci làkk yi nga xamante ne sénégalais dañ koy dégg ba tax na kon peut-être say nationale mën na voter loi mhm. yooyu yëpp ba ñu dugal ko ba ñu commencé ko appliquer alors que nit ñi sax duñu xam ne loi bi am na donc vraiment loolu lu jar nul n'est ignorer la loi boobu noonu mhm. lu jar a xoolaat la parce que bëri yóbbu na nit ñu bëri en prison bëri tey jii ni wala bañ koy def amaana xamuñu woon ni kat ndekete lii yoon daf ko considéré délit wala mm-hmm. wala leen mel mm-hmm. diffamation nag bu ñu koy waxtaanee bu ma ko doon tënk ci benn tënk rek mm-hmm. mooy yàq deru nit wala tuumaal nit loolu mooy diffamation euh, bokk na ci délit yi nga xamante ne mën nañ ko jàppee délit parce que dafa am Sénégal catégorie d'infraction dafa am contravention am délit am crime ñett yooyu bokkul contravention mooy yi nga xamante ni boo ko defee alamaan lañ lay fayloo wala bu ñu lay tëj mënta weesu weer Mm. délit nag mooy li nga xam ni yoon da koy tere te daan bi mënta weesu fukki at loolu mooy délit mooy mm. peine maximale bi dix ans dix ans la crime nag mooy boo xamante ne moom dix ans la commencé jëm ba giiru dund donc diffamation délit la donc code pénal expliqué na lan mooy diffamation bi mu koy expliqué leeral bi mu ci njëkk a def mooy lépp loo xamante ne allégation la maanaam kàddu mm-hmm. wala bind wala wax loo xamante ni dafa yàq deru nit ki. Mm. boo xamante ni dafa atteindre honorabilité wala considération nit ki mooy exactement terme yi nga xamante ne. article mm-hmm. deux cent cinquante huit code pénal utilisé na ko. Mm-hmm. donc bépp kàddu. Mm-hmm. wala bind. wala jëfin boo xamante ne dafa jëm ci tuumaal nit wala yàq deru nit. day dugg ci cadre diffamation. moo xam da nga jiiñ nit ki dëmm. taxaw sax ne nit dëmm la loolu diffamation la. Uh-huh. ñu demee ci yoon. Euh, mën na la porter plainte pour que ñu diffamé la. Mhm. loolu tamit loolu day dugg ci ci cadre boobu noonu. mais mbay Pape bala ngay romb foofu pour nga diffamé nit ki dafay jaadu nga tudd turam. ne diw soog a teg li ngay teg ci moom pour nga diffamer ko wala soo tuddul turam dendale ko ak li ngay wax euh, lan la ci. loolu loolu loi bi prévoir na ko parce que am na ñu bëri ba si ñun journaliste sax bëri na si ñun. da ngay def say allusion ba ku ko lire day xam ne diw mi ngay waxal mais tuddoo turam. waaw loi bi dafa ne. bu dee da nga joxe ay mandarga yoo xam ne ba ku déglu wax ji wala ku ko lire. xam ne diw la waaw mën nañ la cee topp pour diffamation te buñ la toppee dañ lay daan. donc même boo tuddul turu nit ne da nga joxe ay signes yoo xamante ne ko dé ku dégg wax wala li nga wax dina xam ni que diw mii la waxal. Ah. da ngay dugg ci cadre diffamation. Mm-hmm. te ni nga ko mënee def ci ay nit yuy dund na nga ko mënee def ci ay deram bu fekkente ne da nga teg ci deram kàddu yu ñaaw. Mm-hmm. yoo xamante ne jubloo ci lu dul yàq deru soit ay héritier wam ay ñim fi bàyyi njabootam gi fi bàyyi. également mm-hmm. ñooñu mën na la porter mën nañ la. porter plainte également pour loolee nga xamante moom mooy diffamation. ba tey diffamation bokk na ci par exemple koo xam nga ëlbatiku di ko jiiñaat loolee ko doon yoppee yoon doon toppee mën na la topp pour diffamation hmm. exemple bi ma ci joxe mooy kaaw ku ku mel ni par exemple Awa Ndiaye nga xam ne dañ ko doon tooñee sax Awa Kuddu Ndiaye hmm. xam nga dañ ko doon topp lu jëm ci affaire détournement deniers publics ak yu ni mel yoon da ko setal parce que dañ ko may noo lii hmm. képp ku taxawati ëlbatiku di ko wooyee Awa Kuddu Ndiaye am na droit porter parce que yoon da koo setal ba pare diffamé na la mën nga ko topp pour diffamation mhm. diffamation nag euh, waruñu ko jaawale ak li nga xam ne moom mooy calomnie waruñu ko jaawale li nga xam ne moom mooy injure waruñu ko jaawale ak diffusion de fausse nouvelle waruñu ko jaawale ak offense au chef de l'État mhm. ndax euh, injure moom mooy saaga mhm. saaga déli la boo demee ci loi am na ay daan yoo xamante ne mën na yegg ba ñetti weer yu ñu la mën a tëj saaga moo xam ci biir nga ko defee wala ci bitti public wala privé calomnie mooy yàq deru nit ki donc loolu yëpp day dugg ci cadre diffamation euh, ci cadre boobu noonu mais dañ ko war a séparer parce que bokkul diffamation bokkul ak injure diffamation daal du lenn lu dul yàq dëru nit wala wax loo xamante ne dégg nga maam dafay atteindre honorabilité nit ki wala respectabilité nit wala considération nit ki loolu day dugg ci cadre diffamation léegi nag beneen mbir bi mooy gis nga pour diffamation voilà un délit boo xamante ne képp kuñ ci topp amul benn yoon boo mën a rëccee bu bi prévoir Hmm. ku ñu topp diffamation mënoo échapper. Hmm. moo xam c'est valable pour journaliste wala keneen ak keneen. Hmm. parce que benn magistrat bu ma ci doon waxtaan dafa ni ma. même bu fekkente ni li ngay wax ci nit ki da ngaa am ay preuve am ay firnde nit ki la porter plainte jàpp ne da ngaa yàq deram da ko koo tuumaal. su boobaa euh, yoon day dal sa kaw jaasi yoon day. même soo amee preuve même boo amee ay preuve ah mais xam nga journaliste yi. waaw ah, mais lu tax ñuy wax ni justice xamul lu dul preuve kon. ma ni euh, juste gis nañu journaliste yoo xamante ne maa xool benn hmm. affaire. de 2012 à 2022. 10 hmm. ans si fukki at yi ci ginnaaw amul benn journaliste bu ñu fi topp diffamation dem ñu relaxé la. dëgg la bu fekkente ne yow journaliste bi indi nga preuve yi. dañuy topp pour recel de document administratif dañu naan yii document confidentiel la woon am accès mhm. bëri na procès pour diffamation saa yu tribunal correctionnel du siège nga gis ay journalistes yoo xam ne dañuy ñëw pour loolu te pourtant dañuy indaale seen preuve mais malgré tout dañ lay condamné mhm. léegi man loolu dafa léegi kon li lay li lay protégé li la protégé woon ci ci maanaam say source mhm. loo wax foo ko jëlee waaw kon loolu proté li lay protégé foofu kon dootul amat dootul compté foofu nga protection des sources boobu ah. problème la parce ñun ñëpp xam nañ ne charte journaliste yi li mu wax c'est très clair mhm. journaliste kenn mënu ko obligé mu révéler ay sources parce que ña jox ay information buñ ci feeñee dañ la mën nañ leen dàq seen liggéey wala dañ ci war a am problème mhm. yow journaliste même bu ñu lay tëj kaso amoo droit ni fii laa jëlee information bi lu dul ne bu fekkente ni kooku daf ko neex mu induire la en erreur te defu ko de bonne foi mhm. léegi xam nga loolu chaque journaliste loolu la wax. journaliste amul révéler source am. mais boo demee ci code pénal code pénal dafa ne aucun secret professionnel n'est opposable au juge maanaam secret professionnel juge kenn mënul taxaw ci kanam di invoquer secret professionnel bu la nee lever secret kii bi da nga koy lever par force moo xam pour journaliste la pour médecin ak qui que ce soit. Mhm. léegi nag journaliste yi problème boobu lañ am léegi ban taxawaay la journaliste war entre code de la presse bi na li waroo joxe sa source code pénal bi na par force boo taxawee ci juge da nga a joxe. da nga joxe loolu moo ci yéene. cest c'est deux choses mooy. Ah. il semble te protéger. alors que.

nee nañ euh, kii ba nu mu tuddati. 18 uh-huh. ans majeur nga. Uh-huh. waaw kii ne 16 ans. waaw mais alors que ba ñu ne carnet de santé bi balaa ñu la koy jox il faut nga am 21 ans. 21 ans waaw contradiction mm-hmm. Mm-hmm. boo boo di ko def dañu la considérer comme prostitution mineure. parce que mm-hmm. majeur nga 18 ans majeur. waaw nga ci cadre majorité. mais munoo am. munoo fekk jàpp la. dañ lay jàpp te munoo am fenn carte. non carte bi kañ moom ña koy joxe la à dix nga def ko. mais baata mu ñëw si diffamation baata mu ñëw si diffamation bu duggati foofu. waaw wala muy génn <laughs> bi ma gisee. Hmm. ñu indi fa ay journaliste di leen topp diffamation ñu génnee seen preuve teg ci table bi malgré tout ñu condamné leen. daf ma jaral ma dem waxtaan ci ay juge mu ne ma en réalité. Hmm. diffamation muy délit boo xam ne bu ñu la ko toppee amoo yoon boo mën a jaar ba rëcc parce que même boo indee preuve yi bu fekkente ne yow ki la porté plainte jàpp na ni da tuuma yi nga ko teg wala li nga ko waxal jural na ko loraange hmm. moo xam da cee ñàkk liggéeyam wala ñu yàq ci deram wala dégg nga mu perte ci ay mbir jural na ko en tout cas préjudice bu nga ko causé dès l' instant que préjudice boobu am na rek yow dañ lay condamné pour diffamation donc moo ci dafa nekk lu jafe lool hmm. léegi nag am na beneen wàll boo xamante ne daf ci am am na ñoo xam ne dañu leen di topp diffamation parce que dañoo tudd vie privée nit hmm. te balaa maa ñëw ci vie privée sax moo wax beneen sew sew bi mooy. moo tax hmm. le plus souvent journaliste même bu fekkee li nga wax dëgg la am nga hmm. preuve yi. dañuy xool est que yow li nga ko bonne foi moo la ci dugal wala dañ nga ci jublu der yàq deru am na juge yoo xam ne. bu fekkente ne yow jubluwoo ci yàq deru nit. mën nañ la relaxer léegi lu jëm ci wàllum vie privée. loolu moom vraiment dafa jaadu sénégalais xam ko parce que am na ci ñoo xam ne dañ naan pourtant li mu wax ci moom dëgg la soit am naa ci ay am loi bi nee na waaw lu jëm ci wàllum vie privée may ñu kenn muy tudd vie privée jàmbur même boo amee ay preuve boo ñëwee devant le juge dañ lay condamné loolu moom d'accord loolu c'est très clair loolu moom d'accord naa ci ñoom muy journaliste ak muy keneen képp ku lañ bët vie privée jàmm même charia sax loolu daf ko loi bi nee na même bu dee am nga même bu dee dëgg la amul droit wax dëgg la waaw boo ñëwee dañu lay condamné parce que en réalité vie privée nii vraiment vie privée la léegi gis benn pàcc bu ànd ak corom dem restaurant wala dem boîte de nuit ñun la suñu yoon mais vie privée la nga am na léegi mbay waaw dafa am loo xamee ne que dañ koy faral di seetlu ci sunu yenn ci sunu ay mbokk journalistes yuy def people entre guillemets. Mm-hmm. et lii Pam Pam Ndiaye wax nii. Mm-hmm. ça les interpelle directement. parce que foog nañ ne que booy def people te waxoo ne diw mu ngi génn ak diw. wala diw nekk na ci hôtel ak diw. xam na foog nga ne boo waxul loolu rek maanaam yow sa sa sa people amul buzz. fekk na on n'est pas tollooguñu ci niveau de développement ci wallu communication wala boog euh, euh, information boobu boo demee aux États-Unis am na ñoo xam ne ils sont spécialisés sur ça. Mm-hmm. c'est des paparazzi c'est si loolu la ñuy def mhm. am na si ñu ñuy gis la ñuy xëy mais fii au Sénégal on voit peut des gens qui se disent journalistes di nekk ay plateau télévision. Mhm. di lëj vie privée jàmbur. di ci wax loo xam ne après dafay dem ba dafay niroog acharnement chez certaines personnes. alors que amul amulu leen jariñ. surtout ci am ay preuves yu leer. nan ci ci duut baaraam ah. duut baaraam bi ah. mooy euh, ci people boobu ngay wax ah. ak ni ñu koy euh, lëñbatee viwu nit ki dina fekk benn euh, coro mooy romb rek ci internet bi oh. loo xam ne dañ koo bind ci viwu nit ki nga dugg ci biir gis ne la ñu wax kat ah yow kat lii people la nga ne naa ko génne révélé ko mm-hmm. alors que kooku yow la nga la doon wax ci boobule site nga ko gis wala ci internet bi nga ko oh. gis mm-hmm. alors que da ko diffamé ndax xamoo exactement lan moo ca lalu ak kan moo a yàq na même boo amee preuve bi mayewul kenn muy wax ci vie privée dañu lay tëj wala dañu lay condamné man am na benn journaliste bu ma ci doon waxtaanal parce que waaye dafa ñëw ne mu waaye man de tey dal naa ci am naa ngan dem information scoop patron de presse nangam ak yooyu daal gis naa ko ci benn restaurant euh, mu teg benn biiram di naan kërëb kërëb hmm. après ne ko léegi c'est quoi ton problème et après mais lu ci sóor c'est-à-dire gis nga gis nga eh, information loolu information dafa am ay critères pour que ñu évaluer ko dafa am lu ñu tuddee la notion d'intérêt public mhm. maanaam xibaar mhm. dafa war a am njëriñ jëriñ voilà nga ni diw bett naa ko ak biteelu sàngara alors que jullit la léegi loolu ba njëriñ la amal njëriñ la amal société lan la ñuy yokk wala lan la wàññi mhm. mooy ay mbir yoo xamante ne à chaque nit ñaa ngi koy def ce qui dérange le plus gis nañ déjà am na chaîne télévision wala YouTube yoo xamee ne que ils sont spécialisés sur ça gis nga ay ñaawteef euh, rek la ñuy wax cest bañ ko ba teg ay plateau normal pour wax. ci viwu nit ci viwu nit mais attends. ah des émissions yoo xam ne. mais après ça te rapporte kaay ma la kaañu kaa. kaay ma xamal la gis nga. Mhm. Euh, du jaas de day leen xoppi seen bët ngeen di xool. képp mhm. koo xamante nii yaa ngi toog. di xaw yuti si kës nit ñi di xaw yi seen sutura. Mhm. nan xool rek nga dem. kenn tanewu la ci. kenn tanewu la ci. parce que. kenn dafa dafa dafa dafa dafa mënta juger moroomam nit mhm. moo mënta atte moroomam yàlla mooy atte te yàlla moo ñu moom moo ñu sàkk waaw uh-huh. eh, damay wax souvent ma ne nit ku nekk mhm. am na loo xam ne ci sa dund boo sañoon kenn du ko xam kenn du ko xam il faut que nit ñi ci xel aussi loolu mooy kii li muy wax vie privée. Mhm. lu privé mooy mooy yow la concerné. Mhm. ah wax nit ñi bu ñuy wax nañuy wax loo xam ne dana jëmale askan wi kanam. Mhm. dana jëriñ nit ñi ci wàllu xel wàllu xalaat wàllu yokkute. yokkute moo tax man bu ah. ay diw def na takk suuf diw takk na diw suuf Wally sekk takk na kii takk suuf Serigne Sangam. mais après man ci loolu laa bëggoon a ñëw am na ñoo xam ne mu ngi leen bàyyi ci kaso bi actuellement parce que man li tax ree jàpp ma. takk suuf loi bi terew ko te yaakaar naa ni diine tam tere ko parce que l'essentiel mooy nañ ko defee ci anam yu ko l'islam dig takk su du leen du takk boo xam ne publicité lan lan lan cay sib rek mooy am ëllëg ensuite léegi ëllëg gis nga am na ci euh, la kan moo ci ne man la neex ma def ko man hmm. d'accord naa ci kam ko seqal d'accord na ci moo tax par exemple man yenn am na débat yu posé wu yoo xam ne man. vraiment continué day du def lu tardé mu seet rek seet rek leneen li ma bëggoon dolli ci mbir mi mooy. Mm. am na lu jëm ci wàllum diffamation par exemple da ngay dégg ko ne njëkku ma ko wax diw moo ko njëkk wax man wax ma ko pare. même bu dee am na keneen ku ko njëkk a wax wala keneen ku ko njëkk a bind yow nga ñëw jaaraat si tu es coupable de diffamation loolu loi bi tam lu leer la mooy mooy mooy lu jëm ci wàllum cadre ah, reproductif waaw très bien loolu ça ne veut pas ko njëkk a ko njëkk a ba comme concerne ko neexee bañ mi ko yow mi ko jottali yow mi ci ñëwaat amaana ba nga koy waxee ko jottale amaana ba nga koy waxee rax nga ci loo xamante ne dama joxe benn exemple traité nañ fi benn information boo xamante ne Walf Quotidien da ko traité en même temps que l'Observateur uh-huh. ça concerne l'affaire Ndeye Khady Gueye ñu koy topp pour détournement de deniers publics mm. ba mu cautionné devant le juge xam nga bu ñu lay topp pour détournement bu fekkente ne da nga cautionné juge bi mën na la may liberté provisoire mm-hmm. uh-huh. mais la mu joxe woon juge bi bañ ko deux journaux ñoo ko transformé L'Obs ak Walf Walf Quotidien mais Ndeye Khady dafa porté plainte L'Obs bàyyi Walf Quotidien Ah. lu bëri nag affaire boobu jaaxal leen. d'accord donc mais pareen saay ci waxin nga la ci traitement bi la parce que yéen sax da leen dal. waaw ba ci revue de presse day saay revue de presse dañuy yokk ci lu journaliste bi bind. Mm-hmm. dañuy wax ba waxal journaliste bi loo xam ne bind. waxu ko papier bi. wala site yi def reprise. parfois dañuy reprendre benn information.

am na Sénégal parce que ñun xam nga ñun civil yi ci code pénal lañ ñuy jugé. Mhm. mais homme de tenue code de justice militaire ñoom dañu am seen loi boobu boo xam dafa sévère. Mhm. loo seen loi dafa ne bu ñu la condamné trois mois même avec ou sans sursis dañ lay simmi. Mhm. ñoom bu ñu leen condamné amuñ possibilité def appel ñoom militaire moo tax seen loi dafa sévère. donc dafa am des délits typiquement militaires maanaam am na fi Sénégal délits yoo ko def takk der kese moo ko mën a def mooy désertion insoumission insubordination ak yeneen ak leer na mais délit de parce que bu ñu nee délai de presse lan la ñuy wax diffamation mmh. injure diffusion de fausses nouvelles ak yooyu noonu alors que loolu mën nañ ko toppee dañ koy toppee journaliste comme dañ koy toppee civil ñeneen ñi de presse amul mmh. tout comme ni dél de militaire typiquement kii euh, euh, yee am donc vraiment yooyu ay mbir la yoo xamante ne euh, dafa dafa jar a bàyyi xel te képp koo xamante ne topp nañ la pour diffamation daani mën naa yegg ba ñaari at sa dépend ci ki nga diffamé dañuy xool ndax civil la. Mhm. wala homme de tenue la. Mhm. wala ab institution nga diffamé. te diffamation bu ñu koy wax aussi président de la république bokk ci. président de la mhm. république moom boo ko tumaalee wala nga wax leneen beneen délit lañ lay toppee muy offense au chef de l' léegi nag lii problème diffamation bi xam nga léegi maa ngi doon wax ni ku ñu koy toppee amul yoon boo mën a jaar ba rëcc. ba rëcc parce que li dal ci offense au chef de l' état maanaam fourre la offense au chef d'état mooy tooñ njiitu réew mi mhm. loi bi ba waxul lan mooy tooñ njiitu réew mi mhm. ndax nga critiquer président jël benn dogal nga critiquer ko mooy tooñ mhm. wala nga parce que am na ko fi ne woon sax le président est ñu arrêté ko mu ne moom ah. impuissant tële waxeewul tële ci côté góor <laughs> nañ ko ci dugal <laughs> mais daal lépp loo xamante ne day jëm ci yàq deru nit moo xam da ngaa jiñ parce que boo jiñee nit ki dëmm foo jëlee ay preuve Hmm. parce que justice moom doxul ci mystique hmm. lu tax nga def lii dañu maa liggéey ku ko mës a def juge bi condamné la wala mel ni ka ñu jàppoon juge bi ne ko foo jëlee yàmbaa ji mu ne ko dañ ma koo sarax hmm. juge bi ne ko yow xanaa da nga yaakaar ne kan mooy xëy di sarax <laughs> am tuyaaba lu ne ngay gis. yàlla loolu de kenn mënu ci dara nan ma koo sarax. waaw léegi biir ma ko saraxee da koo tux wala da koo sànni wala nu mu ko def. da koo tux moo tax moom bi mu xamee ne yàmba la moom sànniwu ko da koo tux. non duñ <laughs> ko duma ah. lu ko duma mooma du du consommé bi rek la loi bi di tere. waaw foofu la différence amee entre drogue ak phobie bu dee drogue. Uh-huh. jëfandikoo bi sax yegguñ mais nga yor ko rek délli yor ko rek délli la mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waxuma naa nga koy consommer bokkul ak phobie bu dee phobie mën nga koo yor nga koy jéem a jaay mise en circulation waaw loolu la loi bi di tere mais la fekkee nga yor ko du du du délli léegi nag dañuy xool est-ce que yor boobu noonu yow jubluwoo ci woon jug pour dem jaay ko wala tam nekkoo woon di ko defar parce que bu fekkee ne defar bi day crime la boobu moom moo gën a garaaw bu ñu fekkee machine guy defar phobie sa kër wala yéen mel Ngaaka Blindé toppoon nañ ko fi phobie euh, tournage kilibam bi bañ ko jugé nu mujjee dañ koo seetaan mhm. Mhm. Mhm. donc en matière de phobie li loi bi di tere mooy ñu nga koy dugal di ko jéem a jaay moo tax arrêté Thione Seck Thione Seck waaw j'étais le bu taxawoon ni Thione dañ ko war a libérer may ko liberté provisoire pourtant ñu bëri critiqué nañ ma si xanaa avocat Thione nga xanaa lii xanaa lële di la toon mais après l'histoire m'a donné raison bañ ko du seetal nañ ko seetal nañ ko muy la juste quelques jours une semaine avant muy décédé la yoon génne doo ko daal koy seetal wallaay wallaay loolu la parce que da ngay comprendre délit fi muy fi muy fi muy tege donc vraiment lii mooy jar a xam la lu a xam la sénégalais yi na comprendre ci parce que bëri ay sesio bëri na ay rëq-rëq moo nit yëkkati di ko jëmale ci nit nag kaddu xam yooyu kaddu mooy lan mhm. parce que même boo amee ay preuve mën nañ la ci tëj mhm. ñaareel bi moom mhm. loi bi mooy muy dugg di lañ bët vie privée jàmbur boo ci waxee loolu la ci wax mën na mën na laa mën na laa ci te li ci gën garaaw mooy bu fekkente ne da ngaa ñuy tuddee moyen de diffusion publique bu fekkente ne da ko waxee ci rajo wala ci télé wala ci journal moo gën a garaawati journaliste bi nga xamante ni moom yow sa foofu foofu la loi bi bu loolu tam xaw ma contradiction lañ ko mën a jàppee xaw ma mhm. par exemple man ñëw naa bëgg attaqué benn bi ma ñëw ci paate paate tijjal ma rajo bi ma wax attaqué bu nit ki ba sama xol set mhm. loolu ñaari daan la war a am ki attaqué ak ki ibbi man simple complice la mhm. mais yow journaliste bi si boppam lañuy ñuy considéré comme auteur principal yii loolu la loi bi wax maanaam Pathé mi nga invité mais attends juste par exemple. par exemple par ah, exemple. Ah. man amu may woon yéene. waaw kii Mbaye Babacar. xamu woon sax mu jàllale mu jàllale. xam nga wala mu ñëw. potaxlu ci rek ak occasion rek potaxlu ci sama plateau. wala mu bind information sama si si t-shirt am sama plateau. des fois mu dal ñu sax xam waaw parfois ñu dal mais est-ce que est-ce que est-ce que loolu man sama faute la nag pas. parce que parce que parfois thème bi mën nga ko fi indi. def wut prox ndolu. merci beaucoup doon ci rek attaqué kenn wala yooyu. mais loi bi nee na suñu yoon nekkul ci loolu. yow journaliste bi yow yaay auteur principal. kenn ah. simple complice la rek. loi bi dañuy jàpp ne euh, compromis la xëy na bu ngeen tegoon avant. peut ah, ko complot yoo xamante moo tax ñi jiite presse tëdd ñu nelawuñu wallaahi waaw di di surveiller à tout moment tëdd ñu nelaw te bu fekkente ne eh, ki nga xam ne dafay rek ibbi micro invité nit amaana la mu wax ak la mu lii concerné ko nekkul ci oh. xel maa xol ma yow moom la ñuy yow yaay nekk auteur principal bi yaakaar naa ne waaw lii moo tax plateau bi rek nga tey jii nii quel soit lu ma lu ma rubrique bi may animé su ma commencé woon di wax yu teggi new da nga yaay présenté yow yaay patron plateau bi noonu la mel rek responsabilité parce que bu boobaa su ma fa waxee lu waxul yow mi présenté mais yow mi présenté dañ la interpellé dañ naan yow yaay patron plateau bi da ko mhm. waroon dagg wala nga nga waaw lu tax lu tax bi mu koy wax arrêté woo ko waay voilà alors que alors que man je suis assez responsable war naa mën a xam lu waxu mhm. nga mbir <laughs> mais mais mais ci diffamation dañuy dégg à chaque fois Euh, ñenn tam ñoo xam ne ni tam euh, ëmpale nañ comme man ci wàllu justice di wax ne euh, comme ni nga ko expliquer léegi diffamé ki nga xam ne moom moo di njiitu réew mi mu nekk nag loo xam ne ni da nga ne lu waroo la mhm. diffamation ci ci ci ci njiitu réew dafa nekk leneen loo xam ne ni bokkut ak nga diffamé civil bokkut ak nga diffamé ki nga xam ne ay ndombo tànk la yor ci wàllu armée beeg ñoom seen mhm. ban différence la war a am ak loolu tey jii nga diffamé ku mel ni coro tey jii civil la mhm. ak nga diffamé koo xam ne dafa nekk kuy sol tenue ak nga euh, euh, diffamer comme ni ñu koy waxee euh, njiital réew wala institution mhm. lan yan daan moo ci mën a am ak naka la utee waaw bu fekkente ni da nga daan civil bu fekkente ni diffamation bi da nga ko def koo xamante ni civil ordinaire la ñoom ak ñoom ñëpp maximum peine bi deux ans la mënu ko weesu mais minimum bi la ñuy xool bu fekkente ni koo xamante ni institution la wala ku ku am tenue ak yu kooku li gën tuuti ci daan bi ñu lay tëj mooy ñeenti weer maintenant bu fekkente ne keneen la mën na nekk un mois mën na nekk sursis mën na nekk trois mois ak yeneen ak yeneen donc fële day gën a garaaw mhm. te offense au chef de l' moom délit dëkk yu bëri supprimer nañ ko parce que vraiment nee nañ nekkatul mode mhm. moo tax dëkk yu bëri mais Sénégal ba léegi am na fi ba mhm. léegi mi ngi fi am na ay nit ñu bëri ñoo xam ne toppoon nañ leen fi te régime bii fi nekk liñ fi tëj ci ay détenus politiques ak ay journalistes kenn xamul ñu toll lu toll ci vingt cinq journalistes yoo xamante ne subir nañ ay convocation diggante 2012 ak 2022 fii ci Sénégal te groupe Walfadjri moo ci ëppale ay convocation ci journalistes yi te pourtant man fan yi passé rek maa ngi koy wax maa ngi naan euh, ci régime bi toog nii amul benn yoon man fu ma déggee ñu ne benn journaliste condamné na condamné nañ ko ci wàllum euh, diffamation wala délit yoo xam ne dañ ko dañ ko jiiñ ne ko da nga euh, wax ci offense au au chef de l'état wala mhm. yaa ngi wax ne am na ci 2012 ak léegi ñoo xam ne nii leen ci ba am na sax ku ma ne ma déedéet parce que Adama Gaye mësoon nañ ko yóbbu effectivement ci yoon ma ne ko donc kon ni ma am na ci ñoo xamante ne ci convocation lay yem. Mm-hmm. dañ leen di convoqué ñu dem ñu déglu leen ñu libéré leen. am na ci ñoo xam ne dañ leen di convoqué dóor leen garde à vue déféré leen ñu soog leen a libéré. Mm-hmm. mais boo doon xool fukki at di dernières années yi. Mm-hmm. nombre li ñu fi convoqué ci ay journalistes au moins mën na mët na vingt cinq wala trente convocation te groupe Walfadjri moo ci ëppale ay convocation mais Pape xam nga xam nga lii lan mooy yëpp a ngi fi mën nañ ko mais mais mais yan kaa la woon parce que on a largement de temps yan kaa mhm. la woon yu xam ne moo gënoon a fës ci convocation yi nga xam ne rawatina fii suñu suñu kër en 2013 Sidi Lamine Niass convoqué woon nañ ko fi vous vous rappelez très bien ñu garde à vue ko mhm. déféré ko tribunal procureur jël jox ko doyen des juges bi fi nekkoon doyen des juges bi te ba topp daf ci defoon délit boo xam ne mhm. loi bi nee na délit bi bu ñu la ko toppee par force da ngay dem prison muy atteinte à la sûreté de l' état. mais malgré tout doyen des juges bi fi nekkoon jamono jooju muy Maawo Sémou Diouf ba mu jàkkaarloo ak Sidi Lamine Niass da ko Sidi Lamine Niass ba mu duggee ci bureau juge ba. ñaari journaliste képp ñoo ko fa fekk muy man ak Amadou Limbay bu nekkoon fii Walf TV jour boobu ñoo nekkoon tribunal ba Sidi sax di ñu toon nañu waaye nu ngeen def ba yegg si fii mais doyen des juges boobu noonu da ko ni ah procureur nee na naa la tëj de mais man lii ñu lay toppee fii gisuma fi lenn lu jëre yóbbu nit kaso moo tax dama lay mettre en liberté provisoire mu daal di koy libérer dossier boobu foofu la tabbi jaare tabbi géej bu weesoo Sidi Lamine Niass suñu confrère bi nekk fii Mame Biram Waj convoqué nañ ko fi dig parce que benn mm. information bu mu terew terewoon lu jëm ci wàllum carte d'identité ñu mu jëfe convocation dig ba mu génnee sax defoon na conférence de presse boo xam ne mook Sidi Lamine Niass ñoo fa toogoon mm-hmm. bu loolu jàllee également am na ay journalistes Walf Quotidien yoo xam ne convoqué woon nañ leen fi parce que dañu defoon benn titre tuddee gars yi les voyous de la république mm-hmm. ñu def dóor leen convocation mm-hmm. correspondant loo xamante ne ay liggéeyam bu mu la reporter bu tudd Joma Dramé nekkoon Walf Quotidien également moom tamit kooku moom dañ ko sax séquestré woon parce que benn article la bindoon ci waa Eaux et Forêts. Mhm. gars yi convoqué ko sax dañ dem rek di jël ko noonu patam patamee ko comme ça après ñu ñu ñu di koy daal di koy daal di koy libéré. Mhm. ak donc parmi tant d'autres exemples yu bëree bëri yoo xamante ne boo doon xool 2012 ak léegi ëttub taskatu xabaar yi ëpp convocation police wala gendarmerie ak tribunal Walfadjri moo ci ëppale. mais xam nga loolu lan mooy lan mooy lan mooy li di joxe peut-être une explication assez plausible moom mooy fi ñu tàmbalee rek Pape. Mhm. c'est-à-dire tey da ñëw nga bokk ci kuréel ñu waxtaanee mbir tënk ko yóbbu ko assemblée ñu voté ba ñu ñu jàpp ne ñun ci lii la ñuy tënk bu ñuy liggéey euh, malheureusement am na yeneen ci ay mbir yoo xamee ne que def nañ ko ci biir ci biir ci biir loi bi boo xamee ne que en fait dafay du ma wax sax yéguñu ko mais maanaam dafay mel ni que ñoo ko tey lu waroo lu waroowul benn yoon ak li nga xamee ne que moom mooy damay laaj Pape Ndiaye uh-huh. lan mooy ban euh, kii nga nga nga mun a indi yow ci diggante par exemple liberté d'expression uh-huh. euh, droit à l'information ak diffamation ak délit bi ngay wax ni. Euh, offense au chef de l'État parce que mhm. dafa mel ni dafa am dichotomie. Mhm. maanaam dañ lay may fii. mais day am leneen loo xam ne daf lay xañaale fële. est-ce que mën nga ñëw. am na ci cas yoo xamante ne aussi exception mën na am parce que léegi xam nga nee naa la lu jëm ci wàllum vie privée loi bi mu nee moom may ñu kenn ngay wax ci vie privée jàmbur même boo yoree ay preuves. boo waxee ci biir pédia boo ñëwee dañu lay condamné mais am na ay exceptions yoo xam ne loi bi daf ko teg exception yi bokk na ci bu fekkente ni nit ki ci bopp quand la personne elle-même donne un caractère public à sa vie privée yow mi par exemple bu fekkente ne yow yaa xawi sa sutura boobu li naan ku dee ci marché bi yaa tàgge sa bopp mm-hmm. par exemple nga def la nga def nga def ko ci digg penc ma ñëpp di ci teg seen bët xam nga foofu moom bu fekkente ni également dafa am interférence entre vie privée et charge publique parce que bu fekkente ni da nga da nga da nga nekk koo xam ne ministre nga wala député nga wala leneen ak leneen ak men tu as la l'obligation d'avoir un comportement exemplaire irréprochable mhm. maintenant bu fekkente da nga nekk ministre député wala yi ni mel ba pare par exemple dem ci sabar ba di di di ubbil mbarka njaay mhm. mais foofu yaa yaa tooñ sa bopp journaliste bu ko kii doo fa ñëw mhm. dinañ ci ñëw benn jour lu jëm ci droit à l'image bu fekkente ne da nga ko def publiquement nga dem publiquement xawi sa sutura mais su boobaa mënoo invoquer benn benn benn benn benn vie benn kii euh, li nga xamante ni day jëm ci cadre vie privée parce que yow ci sa bopp yow yaa wuñ sa vie privée yow sa bopp yaa ko tëjee nit ñëpp ba ñëpp gis ko donc moo tax am na ci ay exception yoo xam ne loi bi prévoir na ko foofu may nañu journaliste bi nit ki mu mu mu évoquer vie privée jàmbur mais lu neen lu ko may moom vie privée ko ci wax même boo yoree ay preuve boo ñëwee dañ lay condamné très bien te am ay sew-sew yoo xamante ni parrain nit ñi ko xam surtout lu jëm ci drogue xam nga am na ñu bëri ñoo xam ne umpale gis nga lu jëm ci drogue drogue bu mënti doon muy yàmba muy cocaïne muy leneen bu xasee ba mat kilo waaw minimum de bi li gën a tuuti dix ans ngay tëdd est ce que loolu xam nañ ko bu xasee bu mat kilo rek dix ans ngay tëdd waaw ñi ni jàpp ñu yor ay saako nag ay saako ñooñu kenn waxaalewul say wax te te drogue li ci gën a garaaw mooy am na ñu bëri ñu ci jàpp ñoo xam ne ay innocent la ñaata taximan ñoo ne ci prison bi parce que affaire drogue lañ leen di toppee dañuy yeb client bu am drogue bu yor drogue. Mhm. bu doon yow client boobu noonu filature daf ko toppoon wala ñu ko doon signaler bu seeni policier bi rek day wàcc daw bàyyi ko ci oto bi yow peut yow mi borom oto bi. Hmm. yow la ñuy jàpp parce que ci yow lañ fekk drogue bi loi bi yoonam nekkul ci ndax yaa ko moom wala moomoo ko. Ah, moo tax. mais mais mais euh, euh, euh, Pape bis ko toppee aussi bis buñ ko toppee aussi lan moo la mën a setal après bu même su fekkee borom drogue bi moom. Ah, jàppaat nañ ko mhm. mu daan ne carrément kee moomu ko. man maa ko man maa fa dugaloon wax ni mu demee. Mhm. fekk na yow setoon nga ba pare sax mais loi bi moom mooy def liggéey moom moo tax mu mu téye la. Mhm. est-ce que loolu tam dina la set dina tax ñu bàyyi la ci. waaw parce parce que lu jëm ci maanaam drogue xam nga maa ngi wax léegi nii du consommation bi rek la loi bi di tere mais même détention bi yor bi ci boppam loi bi daf koy tere mm. donc am na ci ñoo xamante ne xam nga taximan mënoo oto da ngay tijji saagam xool la fa nekk moo tax ci aéroport yi ak ci feneen ak feneen ak fee aéroport ku la dénk bagage bañal loo parce que am na ci ñoo xamante ne bu ñu gisee contrôle di ñëw dañ la koy sëf te bu ñu fekkee valise bi ci yow wala drogue wala li ñuy tere amul diw moo ma ko dénk amul kii moo ko moom yow miñ ko fekk yow la ñuy arrêté yaa dem répondre devant la justice loolu moo ci compliqué. non dafa metti mhm. parce que man man. na nit ki ne da soxor moo xam. mais moo gën may dem di tëdd dix ans de prison loo xam ne minimum dix ans de prison. yóbbante aéroport téyel ma saak jàllaleel ma defal ma lii kenn defatu ko. Pape gis naa ko ci amoon incident bu metti boo ne bitim réew la jógee am ko ko joxaale ay ay ay ay yëre bébé yooyu ay xale yi. ndekete dafa def ci affaire bi lu lu doy waar rek. moom mës naa ko fi def GPI. GPI waaw GPI c'est extraordinaire. gaa yi ndam la ñu nekk foofu mu ne ko yóbbaaleel ma ko lii soo demee joxal ma ko njaboot gi. ndekete lal nay plan boo rek moom xamu ci dara ndeysaan mu jël valise bi rek comme gaa yi ndam la pour yóbbaaleel ko ko waaye ci yoon wi lan ko jàpp. gis ñibbisee ñibbisee ba fii pour dem këram ca lan ko jàpp noonu la teggee dem kaso. ba xaw kenn xamul ñaata at la moo tax même boo nekkee bitim réew ñu lay yóbbante ay valise ak ay kiiw ak lépp tijjil ba xool li ci nekk yëpp xam lan la ba pare ndeysaan non loolu du ma man du ma ko rusee kenn loo ba a tuuti du ma ko rusee mu na doon mbo mbokk xarit ak connaissance ak ñëpp ci yam du ko rusee kenn ku la yóbbante ay bagage aéroport lu war a jàll aéroport tijjil ba xam li ne ci biir lan la ba pare waaw léegi soog ko jàllale euh, pour ñëw ci lii nga doon wax nii dafa dafa xaw a nag moo tax je vais parler de manière nuancée. xam nga Sénégal ñu suñu industrie yi Sénégal. dafa bëri ci industrie yoo xamee ne que doxaluñu yoon. c'est-à-dire industrie boo xamee ne que mille personnes ñoo ko war a doxal. nga jël deux cent employés. waaw ñoo xamee ne que ñoom nga embauché di leen fay fixe. yeneen huit cent yi. ay journalier nga leen def. par exemple quoi xoolal da ngay dem journalier nit pendant cinquante ans muy journalier te du am embauchement. Mhm. léegi par exemple tey une personne koo xamee ne dafa bokk ci dafa nekk situation boobu mu mu génn révéler ni nga xamee moom mooy condition yi ñuy dundee foofu man en tant que journaliste ma jël information yi bind ko publier ko. Mhm. est-ce que loolu maanaam déjà dafay am caractère diffamatoire. wala bon sama sama liggéey may na ma ko. Mhm. mais est-ce que foofu circonstance boobu dina am caractère boo xamee ne que c'est c'est c'est waaw am na ci am na ci cadre yoo xamante ne. loi bi jàppewu ko comme lu jëm ci wàllum diffamation dafa mel ni procès buy am devant le juge gis nga boo taxawee devant le juge ñu lay àtte. Mhm. foofu loo fa wax kenn mënu la ci porter plante ci biti. de même que avocat yi taxaw di di layoor ñoom dañuy am lu ñu tuddee immunité de parole avocat buy plaider nit lu mu fa mënti wax kenn mënu ko ci topp diffamation mhm. moo tax lu leen neex la wax mhm. lu leen neex lañ fay wax kenn mënu leen ci topp mhm. procès boo xam ne par exemple atte nañu diw diw mii dañ ko doon atte yow journaliste nga dem couvrir procès bi génnee ko accusation yi lu mu garaaw garaaw garaaw loo fa mënti bind kenn mënu ci pour ko da ko da ko violé woon. journaux yëpp relayé ko. mais hmm. après dafa porter plainte L'Obs ak journal L'As mais bañ demee devant le juge tribunal correctionnel juge bi ñoom ñëpp la relaxé parce que dafa ne fii diffamation am fi c'était procès audience publique la woon ñëpp ñëwoon taxaw fa audience publique la ñëpp ñëw hmm. nekk fa hmm. donc ci cadre boobu noonu loolu mën na am maintenant ba pare tamit procès boo koy couvrir tu n'as pas l'obligation foofu nag la la yenn tu n'as pas l'obligation génn naan da ngay dem équilibrer xool beneen parti bële lu mu wax. Hmm. xam nga lu tax parce que procès am na ci yoo xam ne dañ koy dérouler sur plusieurs jours premier jour par exemple euh, euh, ñi ñu ñi ñu procureur mooy def réquisitoire am. Uh-huh. di wax ñii la tuuma yi ñu teg seen kaw. xam nga jour boobu noonu du bokkal ak jour bi exemple mun naa joxe procès Karim Wade ak procès Khalifa Sall. Uh-huh. dafa guddoon. da ci am jour boo xamante ne procureur rek mooy def réquisitoire mooy accusation yi ñu teg ci ñii ñu tuuma. jour boobu mënoo fexe ba mu amoo droit défense ñoom seen tour jotagul. donc jour boobu loolu rek ngay traité. waaw mënoo équilibré ne dam ne damay xool ñenn ñi tamit. défense lan la donc lu jëm ci cadre procès dafa am traitement bu spécifique boo xamante ni bokkul ak traitement classique nu ñuy traité information moo tax chronique judiciaire dañ koy jàng. Mhm. donc loolu dafa am. bu dee wàllum conférence de presse par exemple euh, ñoo xamante ni dañu def ay conférence de presse. Mhm. jël ay accusations yu garaaw teg ko ci nit ki. yow média bi yow da nga ko jàllale. média bi yow da jàllale information bi mais nekkul ne waaw origine yow ci boppam yow yaa tenir les propos propos yooyu noonu yow yaa ko tenir mais da ko jàllale parce que conférence de presse boo xam ne public la woon ñëpp a nga fa woon donc moo tax sax ñi porté plainte ñëpp du ñu porté parce que diw dafa euh, diw def na conférence de presse journaliste ya fa nekkoon mhm. gisaguma cas de boo xam ne journaliste dañ leen topp sur moo tax taxawaay bi ñuy sàkk ci journaliste boo invité koo xam ne day critiquer ni wax lu kii ci nit pour bañ yow ñu boole la ci plainte pour diffamation bi mm-hmm. kooku di wax loolu da nga koy dagg mm-hmm. présenté loo ko des excuses publiques su invité bi bañee présenter excuse publique yow mi présenté nga présenter des excuses publiques mhm. donc loolu dina la dina la dina la éviter la ñu mën la porter plainte pour diffamation wala même bu dee kooku nekk fa sax mhm. nga nga nga nga parce am na yoo xam ne mënoo ko prévoir mhm. pour am réaction nit ki mais publiquement à l'antenne nga annoncé ni que waaw tijji nañ ko suñu bu mën na dugg mu mu mu ñëw réagir donc yooyu yëpp ay mbir la yoo yoo xam ne peut mun nañu dégg nga maam bañ a bañ a bañ a. léegi Pape li la laaj na nañu temps bi xoj nañu. Ah, waaw jeex ah, na tàkk daanaka liñ ñu cërale kon bu ma ñëwaatee mardi prochain mu njëkk ci tontu. voilà laata <laughs> <laughs> ñëwaatee jeudi incha allah di la euh, tontu laaj boobu nga xam ne moom nga koy jagleel ba tax na Pape di la sant di la gërëm macha allah. macha allah euh, am na importance bu baax a baax ndax justice ak ni muy doxee yaakaar naa ne ku ci nekkul comme yow da nga koy umpale lu ci bari amaat na ñu ci jàngaat di la jaajëfal jox la dig daje incha allah allah rabbi ni ki jeudi bii di ñëw waaw man tam maa ngi leen di jaajëfal amoon mbégte partage ak ak plateau bi waxtaan bi amoon na solo mhm, macha allah comme ni ñu koy waxee mbokk yi waxtu bi ñu cërale ci li nga xam ne moom moo di émission bii di petit déj daal dinay jeex ñu amoon mbégte nag di leen ko présenté waaye laataa ñuy dem dañu rek nuyu sunu ay jabar comme ni ñu ko waxee ci yóbbanteep Mbay Babacar mu di ki nga xam ne moom moo di Mami